diggante ba Sénégal moomee boppam ci atum 1960 ak léegi président yi fi jot jaar kenn ku ci nekk lan moo nekk dundam gannaaw ba mu jeexale ca boppal nguur ga bu fekkente ne ñenn ñi dañu daal di taamu des ci ci biréewum Sénégal ci beneen wàll gaam na ñoo xam ne dañoo daal di taamu ci bi ñu ñàkkee nguur gi wone ginnaaw génn dem utali ji bitim réew président ki Sall gannaaw ba mu xamle ne kon moom fa fas yéene naa yéen rek daal di des ci réewum Sénégal file kaw bu fekkente ne dem na ba jébbale leng yi gannaaw ba mu doon amal discours à la nation ni ku démb moom président Macky Sall xamle moo di bu jeexale ci boppal nguurug Sénégal dafa fas yéene daal di des fii ci réewum Sénégal du ko defee ni Abdoulaye Wade Abdou Diouf ba ci Léopold Sédar Senghor mi nga xam ne moom moo njëkk nekk njiital réew bu Sénégal gannaaw ba mu xamle moom Macky Sall ne ñooñee ñu ci bëri dañoo daal di dem installé wu ci réewum France waaye moom du doxalee lu ñu mel Macky Sall ne bu jeexalee ci boppal nguur gi ci élection présidentielle yu février 2024 yi ñu dégmal fas yéene naa des fii ci réewum Sénégal ngir taxawu ki nga xam ne moom moo ko nar a wutu ci kaw bu fekkente ne kookee daal dina soxla lii di ay conseil conseil ci ay kàddoom yu ñu mën a dikkaat président Macky Sall ne bés bu ma jébbalee leng yi ki nga xam ne moom moo may narat wutu damay daal di taxawal ab fondation bu ñu jagleel wàllum jàmm paix ak développement bokku na ci itam gën a investir ci li nga xam ne rek moom moo soxal continent bu Afrique rawatina réewum Sénégal bi nga xam ne suma xol la nekk gën a dëgëral askan wi yeewoo ci Afrique bokk na ci gën a dundal wàllum dialogue des culture ak itam lii di civilisation naka itam wàllum développement durable ak inclusif justice climatique financement bi jëm ci wàllum santé rawatina nag li di santé maternelle ak infantile naka noonu itam gën a taxaw ndaw ñi développement des infrastructures en Afrique bokk na ci itam gën a yeesal wàllum gouvernance mondiale waaye fexe rek daal di gën a dooleel fànn boobee gannaaw ba nga xamee ne loolee may na ma succès bu rëy ci jamono ji nga xam ne tabb nañu ma ma nekk njiital Union africaine ci fàttali nag laataa sax muy jeexal ci nguurug Sénégal moom njiitu mi Macky Sall daal dinañu ko désigner ni envoyé bi ñu doon amal forum de Paris bi ñu jagleel wàllum jàmm ki mu wutu moom Macky Sall di maître Abdoulaye Wade gannaaw ba mu ko daane ci deuxième tour bi ci atum 2012 moom maître Abdoulaye Wade ci la daal di jógee ci réewum Sénégal ci atum 2012 boobee ngir daal di dem installé wu ca Versailles di benn ville bu nekk foofee ca Paris waaye nag taxul benn yoon ki di maître Abdoulaye Wade génne loxoom ci wàllum politique ndax ci atum 2017 moom Abdoulaye Wade moo nekkoon tête de liste coalition gagnante bi di wattu Sénégal gannaaw ba nga xamee ne wattu Sénégal boobee démocratique sénégalais bi mu sànc moom maître Abdoulaye Wade ci biir la bokkoon ci élection législative yooyee doon am nag ci weeru sulet gannaaw gi moom Abdoulaye Wade dellu si waat na ci réewum Sénégal fukki fan ci weeru sulet coalition boobee nag daal di ñàkk gannaaw ba mu amee 17 pour cent ci biir fukki siège ak juróom-ñeent nga xam ne ki nekkoon premier ministre jamono jooje di Mohamed Boun Abdallah Dionne moom moo ko daal di woon jël ci jamono joo xam ne nag moom Mohamed Boun Abdallah Dionne mu ngi doon soutenir kii di président Macky Sall daal dina am téeméer ak ñaar fukk téeméer ak juróom benn fukk ak juróom yi nga xam ne moom moo nekkoon siège yu assemblée nationale gannaaw ba ñu ko tabbee député mu daal di démissionné ni ki fukki fan ak ñeent ci weeru septembre atum 2017 moom maître Abdoulaye Wade gannaaw gi la dal di delluwaat ci réewum France mu dellu si waat ci beneen yoon bu bees fii ci réewum Sénégal ni ki juróom-ñaari fan ci weeru février atum 2019 ngir dal di tàmbale lu ñeel campagne bi mu doon sàkku ngir gaay daal di boycotter élection présidentielle yu weer boobee gannaaw ba nga xamee kii di moom waroon na participer ci yooyu lépp élection te jamono jooje mu doon am lanteeg yoon ba waral ñu dugaloon ko ci kaso bi campagne boobee nag fi mu mujjee moo di élection présidentielle yoo xam ne Macky Sall moo ci daal di am ndam gannaaw ba mu gisee soutien yu bàyyee ko ci ay parti politique yu bëri moom Macky Sall ñu daal di ko tabaat ci premier tour ba ak benn taux de participation bu toll ci cinquante virgule vingt sept pour cent mu di yokkute goo xam ne sax gis na ko mu ëpp lool ca ba ñu ko doon tabbu ci atum deux mille douze ni ki deux mille dix neuf preuve Abdoulaye Wade ak njiital réew mi Macky Sall fas yéene woon ginnaaw mbooleem luy réeroo bu dox seen diggante te ñu naroon yéen rek daje fi nga xam ne moom moo di palais présidentiel ba daal di waxtaan loole nag ñu ngi ko tàmbale woon jëlee rek ca ba doon inauguré lii di jumaak Jinaan bu Kolobaan ni ki weeruk septembre atum 2019 ci locale yu 2022 ñi di njabootuk ak parti démocratique sénégalais daal di woon rejoindre coalition opposition bu mag bi di coalition bu ñu duppee Yewwi Wàllu Abdoulaye Wade décidé dal di quitter ci nu mu gën a gaawee coalition boobu ci weeru septembre atum 2021 gannaaw gi la daal di créer benn coalition bu ñu duppee Wàllu Sénégal mu di sax tur moo xam ne xaw naa méngoog parti bi nga xam ne rek moom moo ëmboon intercoalition boobee élection locale yooyu nag mujjee jur ab échec ci parti démocratique sénégalais bi nga xam ne mujjute imposé li nga xam ne moom moo di dooleem ci jamono joojee gannaaw ba nga xamee ne coalition bu Ousmane Khalifa Sall ñoo ci àndoon ni ñoo daal di imposer seen bopp ba waral ville yu ëpp doole ci réewum Sénégal daal dinañu ko gagné fu ci mel ni Dakar Ziguinchor ak fii di Kaolack Abdou Diouf mi nekkoon président bu Sénégal jëlee ko ci atu 1981 jàpp 2000 doon na koo xam ne kon daal di tul adul benn yoon ci lu jëm ci wàllum politique bu Sénégal ni ki benn fan ci weeru janvier atum 1981 gannaaw démission au président Léopold Sédar Senghor moom Abdou Diouf moo daal di dikk nekk ñaareelu njiitu réew nga xamee ne dañu ko daal di tabb ci premier tour ba ci atu 1983 ak itam ci atum 1988 gannaaw gi ci atum 1993 moom Abdou Diouf ci la ñàkk présidentiel yu atum 2000 gannaaw ba ñu eggoon ci ñaareelu tour bi te mu am lu toll ci 41 virgule 51 pour cent des suffrages ca ba mu ñàkkee pouvoir ba nag ci nu mu gën a gaawee daal dina reconnaître défaite gi nga xam ne moom la am waral ci ëllëg sa mu daal di woo adversaire am nekkoon itam opposant historique di Abdoulaye Wade ngir daal di ko félicité gannaaw gi moom Abdou Diouf ci la daal di décider ngir daal di génnee boppam ci mboolem lu luy dund politique fii ci réewum Sénégal ci jamono joo xam ne nag dafa amee li di obligation de réserve comme ni ko njiital réew ba mu wute woon doon doxale di Léopold Sédar Senghor moom Abdou Diouf ci la daal di génnee boppam utali ji bitim réew niki ñaar fukki fan ci weeru octobre atum 2000 ñu daal di ko tabbu secrétaire général de la francophonie mu daal di fa wutu doomu Égypte bi di Boutros Boutros Ghali moom Abdou Diouf dinañu ko daal di reconduire at foofee ci luy ànd ak déggoo bu mot sëkk ci atum 2006 naka doon itam ci atum 2010 mu di ñetteeluk mandaawam moom Abdou Diouf mandaawam daal di jeex ci atum 2014 gannaaw nag ba mu amee ñetti mandat yu tegloo yi daal dina ko may ci boppal organisation boobe rek ngir mu daal di fa amal ab doxal bu mucc ayib waaye itam teg ci fexe daal di wane boppam ci dimension international rawatina ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo séq lakkum nasaraan Abdou Diouf daal dina réussir bu baax a baax nag ngir daal di liggéey am doole ci réew yi nga xam ne ko ñoom ñoo séq kàllaamay nasaraan ci àdduna wërngal këpp gannaaw ba nga xamee ne itam moom daal dina indi jéego bu am solo jëm rek ci crise politique bi nga xam ne daal dina am naka noonu itam dal di fexe rek ba gën a remobiliser waat li nga xam ne moom moo di réseau associatif bi ëmb ONG yu francophone gannaaw ba mu nekk retraite jamono ji nag moom Abdou Diouf daal dina publier tom bu njëkk bi jëm rek ci mémoire bi mu jaglel dunduk politique am fii ci réewum Sénégal ci atum 2014 ci jamono joo xam ne ñu ngi xaaragum beneen tome bi muy génne boo xam ne rek daf ko fas yéene jagleel jaar-jaar gi nga xam ne daal dina ko am amal kuréel gii di francophonie moom mi premier président bu réewum Sénégal Léopold Sédar Senghor juddu juróom-ñeenti fan ci weeruk octobre atum 1906 ca Joal génn àdduna fukki fan ci weeruk décembre atum 2001 ca version nekk ci réewum France Senghor démissionné ca présidence de la République bu Sénégal laata muy jeexal mandat gi nga xam ne moom la ñu ko tabboon ci weeruk décembre atum 1980 Abdou Diouf mi nekkoon jamono jooje premier ministre am daal di ko wutu ci toogu bi gannaaw ba nga xamee ne article bi noonee la ko tëggee woon mu di bés bu président de la république démissionné kii premier ministre moo koy wutu ci xilaafa gi ci atum 1982 nekkoon na kenn ci fondateur yu association France et pays en voie de développement bokk ci principal objectif bi nekkoon fexe prendre conscience li nga xam ne moom moo di problème de développement ak itam connaissance yi jëm ci lu ñu duppee les pays du sud bokk na ci gën a yeesalaat wàllum nekkinuk ñi nga xam ne ñoom ñoo di africains bu maison internationale des poètes ak itam li nga xam ne moom moo di écrivain de Saint-Malo gannaaw ba mu feebare nag moom Senghor mënees ñu jàpp ne at yi ko dese woon ci dund ci kaw suuf mu ngi ko def ci wetu soxnaam ca Verson nekk ca Normandie mu di sax fi nga xam ne moom Léopold Sédar Senghor foofee la génnee àdduna ni ñaar fukki fan ci weeru décembre atum 2001 gannaaw gi nag lii di dëjëm ñu ngi ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre atum 2001 fii ci Ndakaaru ñi ko organisé woon nag nekkoon président bu Sénégal ci jamono jooje ci teewaayuk président Abdou Diouf mi nga xam ne moom la Abdoulaye Wade wutu ci boppal réewum Sénégal naka noone ancien président bii di Raymond Forny président bu Assemblée nationale française ci jamono jooje ak kii di Charles Josselin secrétaire d'État français ci wetu ministre des affaires étrangères bi ñu dénk wàllum francophonie néewuk président Sénégal ba jëkk di Léopold Sédar Senghor daal di tëdd ca cimetière catholique yu Bel Air ci Ndakaaru